Euh, man la Malick Ngom nekk euh, secrétaire général commission centrale des arbitres de lutte du Sénégal ñu xam lan moo leen dajale euh, merci Bass ma lay nuyu bu baax a baax euh, di la remercier ak sa équipe bi yëpp ñi ngay liggéeyal au niveau de Wassare Lamb euh, ci déplacement bi ngeen def ñëw fekk suñu fii ci Saly pour couvrir pratiquement li nga xam ne moom la ñuy def ñun dañ fi daje woon tey comme niñ koy defee at bu jot dajale arbitre Sénégal yëpp ñu def genre ndëpp nu ma ko mën a waxee. ndëpp bi ku nekk day génnee li nga xam ne moom lay jànkonteel seen dëkk après ñu xool yan solution la ñuy def loolu moo sabab li tax ñu daje fi tey ajuma samedi ak tey dimanche ñu nekk ci conclusion yi euh, waxtaan bi nag lu bëri génn na ci lu mot juróom fukki arbu arbitre ak lu teg daje nañu fi jóge Diofior Fimela Kaolack Gossas jurbel euh, dakaar Thiès Mbour donc mën na wax ne gox yi nga xam ne moo gën a ñoo gën a ŋànk làmb am na ñu fa jóge ñëw teewe ndaje bi ku nekk nag teg na ci taal bi li nga xam ne moom la arbitre di dajal di jànkonteel pour que euh, ci seen gox léegi biñ ci pare yemuñu ci wax jafe-jafe rek mais am nañ ay solution yoo xam ne dañ ko proposer pour que lépp luy doxal làmb lii daal moo waral ndaje bi euh, ñu nekk fi ñetti fan defoon loolu waaw ñu remarqué que am euh, yu bari yu ñëwut. <laughs> seen ñàkk teewaay. Euh, situation bi ñu nekk ci Covid bi euh, CRA yi ñëwul CRA mooy commission régionale des arbitres ku wax Joof Yoor wax Fimela xam ne ci Fatick la bokk Kaolack seen président mu ngi fi am ñu mu àndal Gossas ci Fatick la bokk ba léegi am na ñu ñëw. Diourbel lu mot délégation bi war na mot délégation bi am na ñu fi ñëw ñu ngi fi Euh, Thiès ñu ngi fi te ku wax Thiès Mbour mi nga xam ne ak kayit am na ñu fi nekk donc boo seetee làmb Sénégal ni mu fi mu gën di bëree am mooy ci région yi mala lim euh, terewul nag yeneen région yi nga xam ne Sénégal lañ bokk ba léegi te am fa ay arbitre muy Casamance Ziguinchor ak lu mel ni Saint-Louis euh, seen i arbitre jot nañ leen dégganteeg ñoom ba ñu yónnee ñu seen rapport mënuñu ñëw ndax déplacement bi mënuñu ñëw ndax aussi moyens yi toppul. mooy yi war peut-être amuñu ko pour mun a déplacer wu ak situation am na ñu ci am empêchement nag parce que suba am na l'examen bu tudd BFM te bëri nañ ay jàngalekat ci ñun euh, boo déplacé wu pour nga ñibbiwaat fekke ko mën na indi jafe-jafe euh, moo waral ñu jot nañ dégg nañ leen ci seen i rapport mais ñëwuñ physiquement mais ñëw nañ euh, par par seen rapport voilà. ci rapport yooyu noonu ren lan moo nekkoon yi des régions. bon région yi nekkul doléance mais jafe-jafe sax laa mën a wax ne xam ne ñu ngi koy daj. dañu seetlu ne jëlee ko dakaar ba ci région yëpp yi malim am na problème mu sécurité ñëpp jooy nañ ko fi surtout ñi nga xam ne ñoo gën a nekk ci gox-goxaan yi euh, problème mu sécurité jooy nañ ko trop da ngay gis lamb tas euh, am na ñu fi wax yu kaa yu garaaw yoo xam ne seen i moto la ñu yor paan ci àll bi mbër yi nga xam ne ñoom lañ doon ate fekk leen ci yoon wi di leen wax lu ne yenn saa yi nga dajeeg ñu compréhensif ñu yóbbaale la ñii supporters yi yéeg ay charrette fekk leen ngeen di dox di ñibbi ci yoon wi xam nga yu bëri yu mel noonu. Euh, ba wax na waxtaan nañ ci am na ñoo xam ne nag ay agression lañ jot dañ leen kaw Kaolack am na fa benn arbitre wax na fi lu garaaw dañ ko dóor ba mbokkam mi sax xamee wuñ ko ci làmb joo xam ne dafa arbitre juum te ku nekk ak li ci li ngay liggéey ci ngay juume waxoon nañ fi ay cas yu amoon Dakar arbitre bu ñu dóoroon ba mu yeewoo CTO euh, wax nañ fi euh, Diourbel cas yu mel noonu ñoo xam ne ay agression Euh, waa Joof yor ak waa Fimela aussi jot nañu wax ne problème mu sécurité buñ ko amoon aussi dina leen arrangé Joal wax nañ fa benn arbitre bu ñu dóoroon boxoti yére yi campement Ngekoox am na fa donc yii yëpp nekk yoo xam ne toog nañ fi arbitre yi jooy ne daal bu ñu sañoon ñu dimbale leen ci wàllum sécurité ku wax agression yooyu yu mel noonu wax ne nag laaj nañu aar arbitre bu ñu jógee ci jafe-jafe yooyu police d'assurance nit ñi bu ñu amee assurance tolof tolof yu mel noonu fekk leen ci. police assurance bi mën leen jël en charge parce que nag eh, boo ci ñàkkee sa bakkan sa njaboot mën na leen lor parce que peut-être soutien de famille nga mais dina woon baax ñu am police d'assurance boo xam ne lu mel noonu bu la ci fekkee xëy na assurance yal na yàlla yal na mu bañ a am police d'assurance boobu mën la jëlaale en considération donc euh, boo seetloo assurance problème boobu am na ci wax jooy nañ ko arbitre aussi jooy nañu formation boo génnee Dakar day mel ni règlement bëre bi am Dakar amul ci région yi. donc te même mbër yi bëre Dakar ñooy bëre ci àll bi baax na nag arbitre yooyu heure bu saison ubbeetee ci perspective ya maanaam solution ñëwuñu rek pour wax yi jafe-jafe mais dañuy waxaale ay solution baax na balaa saison ubbi ñu dajale arbitre Sénégal yëpp ci benn béréb ne leen nag règlement bi lii la lii la lii la lii la ku nekk bu ñibbee sa dëkk niñ nga ko waxee woon foofu nga pratiquer noonu bu saison ba tëjee ñu def jàngat muy bilan xool li nga xam ne moo sooxe xool nan lañ koy améliorer ci biir saison bi ñi soxla ay avancement parce que booy liggéey dara aussi da nga bëgg a avancer ñi soxla ay avancement ñu leen di def ay formation aux besoins maanaam saa yuñ ko soxla gox gu gis ne sox soxla nañ formation arbitre ñu defal leen formation pour que affaire bi mun a nekk parce que bu arbitrage avancer rek xëy na jafe-jafe yu bëri mën na wàññeeku loolu bokk na ci li nga xam ne euh, jooy nañ ko fi à part assurance yi wax nañ affaire honoraire seetlu nañ ne dakaar ci bëre dóor bëre simple euh, bu lam mise nekkee million soixante dix mille ci li teg droit d' organisation arbitrier ko moom mais loolu doxalinu CNG la doxalin boobu seetlu nañ ne dakaar la yem ak Diofior Fimela ak fatik li ci des ci ces régions yëpp muy mbuur bi ñu nekk muy Thiès muy Kaolack muy Diourbel ñoom ñëpp jooy bi benn la dañuy arbitrer lamb ba mu jeex ñu yëkkati ay pourcentage yoo xam ne du lu CNG tënk jox leen ko mu nekk loo xam ne dañu jàpp ne comme règlement bi ngànk CNG moo ngànk Sénégal yëpp ñëpp a ci war a tënku ku ci wàcc CNG bi def la war a tegaat ci yoon am ñu ko wàcc nag ñu jooy ko ba sonn bind ba sonn te amul aajo bi fajuwul bokkoon na sax li taxoon ñu dem ci grève loolu jooy nañ ko pour que ñu tënku ñëpp tënku ci ci bëre simple bëre dóor euh, am na bëre simple bi ma doon wax ba léegi sax am na gox yoo xam ne dañuy arbitré ñaar ba ñetti fan ñu jox ñaari téeméer wala ñu jox leen ñetti téeméer te pourtant gis nañ ne ba ng ne mbër yi nañuy fay 1000 francs ci bëre simple loo xam ne presque monde lamb yëpp kenn àndu ci ñooñu ñu ngi koy def tënku nañ ci parce que am na xaalis ba cay dugg mais li nga xam ne dañ leen ne fay leen nit ñi nii ñu bañ na duñ ca tënku. di tëkk ca xaalis ba xëy na am neneen nuñ koy utiliser ci seen activité te ku nekk li mu yelal jox ko ko loolu ci bëre simple bi la. bu ñu demee ci wàllum bëre dóor am na gox yoo xam ne ba léegi ci côté Peyor bi li ñu jox arbitre dafa tuuti trop dafa tuuti trop trop trop. ñu ne wax dëgg fa yàlla nañ ko xoolaat muy li muy dakaar loolu ñëpp la dakaar jooy na ko yeneen région Sénégal yëpp jooy nañ loolu payoor bi dafa néew trop ci bëri dóor euh, bu loolu weesoo arbitre bu nekk ci li ngay liggéey bëgg nga avancé boo jógee ci grade bi parce que arbitre dafa am ay catégories locale la commencé maanaam ñi mënul liir mënuñu bind waaye ñooñu règlement dafa ne seen gox boobu lañ mën a yem di arbitre waruñ fa romb mais boo leen jëlee gox boobu yóbbu leen te arbitre dañ ne forcé da nga war a mën a bind rapport donc ñooñu bu dee jàngoo nag mënoo bind rapport te mënuñ la génnee ci arbitrage bi ci gox ga nga dëkk fa nga yem. mais boo rombee grade local boobu am na départemental am na régional am na national am na international mais dañuy toll foo xam ne arbitre yi nga xam ne yëg nañ national dañu mënul dem defi grade international parce que fi ñuy defee grade international ci réewum naar yi la te boo fa bëggee dem paas dem ci sa xaalis euh, jënd frais de frais frais euh, hôtel yi ngay loger ak xaalis ba ngay joxe pour participer ci loolu ay millions la lum tuuti tuuti mën na nekk un million ba deux millions loolu benn arbitre bu ko bëggee gàddu ci poosu boppam loolu vraiment pour nga jàll grade international blocage lay doon ñu ne dañuy ñaan kilifa yi ñuy supporter même quatre-vingt pour cent ci frais yooyu nga xam ne arbitre yi bëgg nañ yegg grade international loolu bokk na ci li ñuy mbébét parce que bëgguñ Sénégal am ñetti arbitre international kese ci Afrique yi ñuul yëpp Afrique ñeenti arbitre yu ñuul ñoo am muy ñetti Sénégal lañ euh, kenn ki Nigéria li des ay naar la donc yooyu noonu ñu doon ñaan suñ comme am nañ potentiel bi fii Sénégal ñu dimbale leen bu stage yi amatee ñoom ñu defi ko mun a nekk grade international. Euh, ñu nekk ci région yi aussi soxla di yéeg ñu seetlu ne arbitre moo war a former arbitre formation boo ko déggee arbitre arbitre moo ko war a former parce que arbitre moo xam li règlement bi wax. lii boo ko defee lii la lii boo ko defee lii la lii boo ko defee lii la mais yenn saa dañuy gis ñoo xam ne du ñu ay arbitre di former ay arbitre loolu day indi jafe-jafe yu bëri bu arbitre yooyu demee sur le terrain di arbitrer ñuy jox parce que journaliste boo xamul journalisme mënoo former journalisme il faut nga nekk ko pour mën ko def. bu loolu weesoo ñu ne drapeau chef de l'État li arbitre yi daj ak li ñu leen di jox new na trop parce que dañ leen di jox même chose que ñeneen ñi nga xam ne peut-être liggéey bi arbitre yi def defuñ lu toll noonu. ñun nañ ko seetaat aussi pour que xoolaat arbitre ci condition yooyu mais daal li ci gën a am solo ñu coow ko fii mooy sécurité bi ak police d'assurance bi lii daal jooy nañ ko mais yemuñ ci jooy dañu to indi aussi ay proposition mooy ñu ñuy defal ay form ay stage de formation ñu koy financer di subventionner arbitre yi nga xam ne ñoo bëgg a def grade international di fay ay formation pour arbitre au niveau gox goo soxla ñu déplacer ci pour ñu mën a am formation di organiser ay séminaire lu mu tuuti tuuti ñaar ba ñett ñaar benn début saison ak fin saison début bi pour ñu xool mise à niveau fin bi pour ñu xool bilan bi ak perspective yi bu amee diggante bi ñu ko soxla ñu defal leen lii daal bokk na ci li mébét euh, waxaat nañ tamit ne at bu jot niñ koy defee parce que ren la cinquième fois ñu koy def nekkul problème moo am ñu doog ko def juróomi at a ngi nii ñu koy def bu ñu koy def ci juróomi at nag te problème am ci diggante bi arbitre ak CNG mënuñ wax ba jóge fi te waxuñu ci problème yooyu looloo waral ñu wax ci problème yooyu taxuñu fi ñëw mais jàll nañ ci leneen pour lu jëmale làmb kanam ci leneen li ñuy jàll nee nañ am na loo xam ne réglement arbitrage sóoraale wu ko te ñun ñu koy jànkonteel ci biir as ci biir géew bi ñu ne nak règlement bi sóoraale boole ko ci seeni texte bokk na ci mbër mi nga avertir te combat amagul. loolu mën na yàqi komba nga jox mbër mi par exemple ñetti avertissement te bëre dóor te avertissement bëre dóor juróom la yem nga jox ko ñett wala ñeent te arbitre sifleegul kooku déjà ci boppam pénaliser nga ko dootul nekk parce que day ne bu ma juumee lu ndaw sama combat fii lay ñëw ci la mbër mi di ñëw asaaloo combat lu mu am jël te loolu avertissement yooyu ñoo ko teg ñu ne nag proposé nañ leen benn mbër ba ñetti jël avertissement balaa arbitre bi sifflé avertissement bu mu jël na nekk ci biir combat bi nga xam ne bu ñàkkee avertissement xam ne moo ko liggéey doolu pro bokk na ci li ñu proposé ñu soorale ko ci règlement su wax nañ ci aussi ñu sóoraale am na yu sew yoo xam ne day xew ñu koy dajal ar mbër yi dañuy bëre génn géew bi boo xoolee Gris Balla Gaye bëre ba génn géew bi ñu ñëwaat kii ne fii laay taxaw kii ne fee laay taxaw règlement bi sóoraale wul loolu te loolu mënoon na indi jafe-jafe mais lijjante nañ ko. ba yàlla dogal ñoom ñu bëri ba lamba ja yegg mais mënoon na indi blocage ku nekk bu siis woon fu mu taxaw te règlement sóoraale ko mën na indi problème yu mel noonu wax nañ ñu sóoraale ko recours à la vidéo soxla nañ ko ñun arbitre waaw moom la ñeneen ñi di wooye VAR mais dafa nekk loo xam ne ci yoon la ñu sóoraale ko ci suñu texte arbitre bu sañoon bu ñu bëree ba pare suñu bëree ba pare ñu am litige bu am ñu dem xooli vidéo dellu siwaat jox ki yelloon ndam sur place dina tax mbër mi dootul def recours di fay vingt cinq mille dina tax supporters yi war a am victoire am ko ci tàng-tàng bi mën a ñibbi seen kër jubilé dina tax arbitre boobu aussi sauvé wu ay saagaak yooyu yëpp dina ci mucc parce que da boo yàqee ko mbaa neexul nga ñibbi di deg saaga semaine bu nekk ngay gis image yi xam ne teyeef juum nga te teyoo ko xëy na boo gisoon image ba mënoon nga am chance nga rectifié wu balaa nga demaat donc loolu yëpp daal bokk na ci li nga xam ne euh, bokkoon na ci suggestion ak yeneen yoo xam ne bëgg nañ ko suggérer ñu sooraale ko ci règlement yi nga xam ne euh, moom la CNG di bind. mais loolu ñan ngeen koy jébbal que ngeen problème ak CNG. Euh, comme nañ ko daan defee rek euh, ñun CNG seen mandat le 31 octobre lay jeex te 31 octobre boobu am na lu ñuy waxtaanee am na lu ñuy waxtaanee pour def marche 31 octobre parce que nag nit ki duñ ko teg loo xam ne du yoon muy noppi. nekkul ne dañu bëri wax fu nekk ñu fay wax mais dañu teg daan boo xam ne ci injustice lañ jàpp ne ci lañ ko teg daan boobu nag moom la ñuy topp di jooy ba ba ñuy dindi daan yi parce que lamb ji nag ñun ñëpp ko bokk te lu ko defara ñu tax a jóg waaw buñ paree presse baa ngi fi ñu ñi ngànk lamb ñu jox leen ko kilifa bi nga xam ne moo war a atteet ki muy ministère des sports fédération football ba mu amee problème xëy na da koy lijjanti basket noonu ñun ñëpp moo ñu uuf njabeete donc bu lii amee ah xëy na am na loo xam ne mu ngi ci boppam te waxuñu ko te xamaguñ ko mais ñun dañuy continuer ñu xalaat ne buñ ko defee solution dina am bu ñu defee document boobu mun nañ ko tënk su jox suñu kilifa yi mun nañ ko jox à travers la presse ñoom ñëpp ñu wasaare ko mondu lamb jot ci ñu ngi ciy xalaat. waaw def nañ bind nañ document yi ñu ngi ciy bind rédaction bi gaa ngi koy bind suñu paree rek ñu jéebal la ko jéebal ko ñi nga xam ne moom lañ xalaat ne war nañ ko mën a jot euh, loolu daal mooy li nga xam ne ñun jot nañ ko fi jot a def. Euh, avant mot de la fin bi daañu woon yem ci loolu dañ doon def dañ doon def cambar làmb cambar làmb mooy xool jafe-jafe yi xool solution yi nga xam ne xalaat nañ ko proposition yi ñu bëgg a yóbbu balaa yeneen saison di ubbi même ñun bu ñu fi nekkatul sax ñeneen ñi ñoo jëriñoo ko bu loolu weesoo dañ doon boole activité bi ak li ñuy wax social Mbodiène lañ doon dem ñeenti at ku nekk indi li nga am yaa xam nga dem marché jënd fa yi ay yére yaa xam nga jënd fa ay saabu jënd fa ay ballon de football ay tenue de sport ñu dajale ko def ko ay valise yi valise dem ca kër sœur ya jox leen ko ne jébal ko ñi nga xam ne dañu neew doole mooy ci moment bi ñuy def activité yooyu ca la ñuy boole loolu day am heure boo xam ne dañuy déplacé wu dem football ak jeunes yi buñ paree jox leen ay maillot ak ay ay ay ay ballon de foot parce que dañ jàpp ne sport dafa war a boole muy football ba muy làmb muy lu ne dañu war a booloo bokk ndey bokk baay ñoom ñu lay gis ci télé bi wala yeneen ba ñëwee football ak ñoom dañu kontaanoon trop ñu jox leen jéebal leen loolu jox ko sër bi nag ne ko lii néew si doole yu dëkk yi ñoo ko moom du chrétien du musulman ñëpp a ko bokk mais comme yéen a fi dëkk yéen a ñu gën a xam ñi ko yelool tasaare leen ko ñun ñu nekk suñ kii participation pour ñu bokk ak ñoom loolu moom lañ mas di booleel ak activité bii ñuy def ren nag ak situation particulière Covid bi mënoo jënd ay yére. joxalante boobu mën na in wàll feebar feebar boobu te jël nañ suñu disposition ak thermoflash ak masque yeeg gel yëpp ñu indi ko ci rencontre bi euh, loolu pour ñu jël ay matériel jéebal ko ay nit dañ ko moytu mais ci kattan li ñu jot a yor ñu dajale ko ay nit dimbale ñu ci jot nañ dem seeti mbari yoo xam ne dañ doon activité te mënatuñ ñu jéebal leen suñ dimbal saafuwante ak ñoom comme ñu ñëwaat moment yi nga xam ne ñu ngi leen doon arbitré vraiment yàlla dogal suñ doole nu mu tuuti tuuti ñu jéebal leen ko ñu koy nuyu bu baax muy kase Diop sànq lañ fa dogee ñun arbitre yëpp def délégation ci moom euh, waxtaan ak moom mayaat ko courage et vraiment loolu nekk na loo xam ne solidarité bi côté boobu lañ ko xaw a jéebale vraiment famille bi kontaan ci trop loolu nag buñ ko mënee suñuy cotisation la ak ay personnalité yoo xam ne dañoo dimbale te yàlla tax parce que dimbale ñu pour ñu jàppal leen ci seen bëgg-bëgg mais dañu ñu dimbale pour lu jëmale làmb kanam parce que dañ ay nit yoo xam ne heure bu ñuy dox affaireu làmb ñoom dañ ciy def seen xar seen tànku tam tànku tubéy pour que làmb jëm kanam mën naa lim Kéba Kanté dañu jox ay soutien ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi ci làmb Kéba Kanté déplacé wu yëkkati dooleem ne lépp lu jëmal làmb dama ciy sawar yëkkati jox ñu ko Yaxya Joob yëkki mbër def ñu noonu Euh, Jax production def noonu Luc Nicolaï ñu koy remercier bu baax a baax moom aussi mu def noonu euh, ki tudd Bouré Ndour nekk imp doméñal bu doméñal fii Mbour ñëpp xam nañ ko Bouré yëkkati doolem jox ñu ko Bekaay Mbay reporter Manga 2 donc ñoo ñëpp yëkkati nañ seen doole jox ñu ko vraiment pour que lii mën a antu parce que gis nañ ne lii doxuñ pour lu yàq lam mais lu jëmale lam kanam la Sénégal nag dafa baaxoo boo limee nit rek. mu ne ñii li ñuy def ñoo ñoo nekk seen ginnaaw déedéet kenn nekkul suñ ginnaaw ñun lii juróomi at ngi nii ñu koy def année yee passé am na ñeneen ñu ci dimbale donc année bi aussi ñii buñ ñu dimbale buñ ñu dimbale jaadu na ñu lim leen remercier leen gërëm leen ci loolu parce que mënoon na leen ci mën a fekk donc may jaajëfal ñëpp yéen wasaare ci déplacement bi ci turu arbitre Sénégal yëpp gërëm ñan ñu ñu soutenir gërëm nañ leen aussi yéen ñu ñëw couvrir lii ba ñëpp mën ci jot. lu wax ji bu jubee nag eh, ci yàlla la suñ borom la bu dëngee xëy na ci man la mais lu baax rek laa ci jublu woon et bëggoon aussi fidèle ci li nga xam ne moom la mbooloo mi décidé woon waxtaane ko ma lay jaajëfal bu baax Bas merci Basirou